yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñaar fukkeelu njàngale mi ak juróom ñaar yàlla wone na dooleem jaarale ko ci yonent yàlla Ilias nanu bamtu nettali yi weesu benn lan la yàlla jox waa Israël ngir wommat leen yàlla jox na leen fukki ndigal yi ñaar lan mooy atte bàkkaar maanaam bañ def li yàlla santaane. ate bàkkaar mooy dee ak teqaliko ak yàlla. ñett naka la wa Israël daan baaloo suñu moyee benn ci fukki ndigal yi. daan nañu saraxe mala bu amul sikk deret ji du fay bàkkaar bi waaye doon na wone ne bàkkaarkat lañu te yelloo nañu dee ñu ngi doon séentu musalkat bii dee ngir fay seeni bàkkaar ñeent ndax yonent yi doon nañu bàkkaar waaw yàlla moo leen tànnoon waaye ay nit kese lañu woon ay yoon a ngi nii yu ay yonent bàkkaar ci seen dund adama lekk na doomu garab bi ko yàlla tere woon bàkkaar na ibrahima am na doom ak jaamu saara bàkkaar na Musaa rey na nit bàkkaar na Dawuda njaaloo na bàkkaar na Suleymaan jël na jabar yu bare tabaxal na leen ay magalukaay ngir ñu jaamu seeni yàllay xërëm bàkkaar na juróom kan moo bàkkaar ñépp bàkkaarkat lañu juróom benn ndax yàlla dina nangu bàkkaar jege ko déedéet juróom ñaar naka lañuy ñuy feye sunuy bàkkaar mënuñu fay sunuy bàkkaar waaye yàlla tëral na lenn mbind mu sell mi neena ci benn buur yi saar fukk ak juróom-ñett aaya ñaar fukk ba aaya ñaar fukk ak ñeent bi mu ko waxee Akab yónnee ay ndaw ci ban Israël gépp te mu dajale yonent yi te tund Karmel noonu Ilias ñëw ba jege mbooloo ma mépp ne ba kañ ngeen di bàyyee bajantu ci ñaari wet yi su fekkee ne aji sax ji mooy yàlla topp leen ko su fekkee ne baal la topp ko mbooloo ma bañ a tontu dara noonu Ilias newaat mbooloo ma man rekk maa des ci yeneenti aji sax ji te am na fi ñeent téeméeri yeneent ak juróom fukk yu baal jox leen ñu ñaar yëkk te ñoom ñu tànn ngir seen bopp wenn ci yëkk yi te nañu ko dagg ay dog ba noppi ñu teg ko ci kaw matt mi bañ cey def safara te man itam dinaa defar weneen yëkk bi teg ko ci kaw matt mi te duma ci def safara gannaaw loolu ngeen ñaan seen yàlla te man dinaa ñaan aji sax te yàlla ji wuyu jaare ci safara kooku mooy yàlla te mbooloo ma mépp tontu naan baax na bu leen fàttee seet melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla wone na dooleem jaarale ko ci yonent yàlla Ilias nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla wone dooleem jaarale ko ci yonent yàlla Ilias ñi ëpp ci buur Israël gannaaw nguuru Suleymaan daawuñu topp yàlla te doon nañu jiite Israël ci bàkkaar waaye yàlla ci mbaaxam yónni ay yonent ñu artu waa Israël ci mbirum merum yàlla ak seeni bàkkaar ak ci bësu àtte ba suñu wéy ci top yeneen yàlla kenn ci yonent yooyu Ilias la tuddoon te jamono Ilias benn buur bu bon bu tuddoon Akab moo jiite woon Israyil Akab ak Yesabel jabaram doon nañu jaamu ab yàlla xërëm bu ñu doon woowee Baal yesabel reelu na ay yonent yàlla yu bare benn bés yàlla yónni ilias ci buur akab ilias ne ko giñ naa ci aji sax jiy dund di yàlla israel ji may jaamu ci at yi du taw du lay lu dul ci sama kàddu noonu yàlla wax ilias mu jóg foofa te dem làqu ndaxte akab meroon na lool yàlla wax iliyaas mu dem ci àll bi ci wetu ak dex te toog fa yàlla sant ay baaxoñ ñu koy yóbbul bés bu nekk mburu ak yàpp gannaaw gi dex gi fer noonu yàlla yebal iliyaas ci ab dëkk amoon na ca dëkk ba jenn jigéen ju jëkkëram dee jigéen ji ab néew doole la woon amul woon lu dul tuuti fariñ ak tuuti diw Ilias wax ko mu lakkal ko tuuti mburu mu def li ko Ilias wax yàlla barkel ko mu jóge fa ñàkkatul fariñ ñàkkatul diw benn bés doomu jigéen ji feebar daldi de Ilias ñaan yàlla mu dekkal xale bi yàlla def ko Ilias làqu ñetti at yàlla wax ko mu dellu ci akab te wax ko ne yàlla ji dina tawaat akab mere woon na Ilias ndaxte xiif amoon na ca réew ma ndax maral ma mu jiiñ lépp Ilias Ilias ne buur bi yow yaa indi xiif mi ci réew mi ndate yow yaa dégg dir yàlla akab daawul jaamu yàlla aji dëgg gi baal la daan jaamu Ilias ne akab yabalal waa Israyil ak ñeenti téeméer yonent baal ak juróom fukk ca tund karmeel dinañu fa daje bi ñëpp daje ci tund karmel Ilias ne waa Israël ñu tànn ci diggante yàlla borom bi ak baal kan lañu ciy topp waaye nit ñi bañ a tontu noonu Ilias ne leen su dee borom bi mooy yàlla jaamu leen ko su dee nag baal mooy yàlla jaamu leen baal ilias ne indi leen ñaari yëkk yonent baal yi nañu jël benn yëkk rey ko dogat ko teg ko ci matt mi waaye bu ñu taal matt mi man it dinaa jël yëkk wa des def noonu su ko defee yonent baal yi ñaan seeni yàlla man dinaa ñaan borom bi yàlla ji wàccee safara si mooy yàlla ju dëggu ji yonent baal yi rey seeni yëkk dogat ko teg ko ci matt mi tàmbali ñaan ñu yuuxu naan baal baal wuyu nu ñuy fecc di wër matt mi di ñaan ba njolloor jot waaye safara wàccul iliyaas ñaawal leen naan yuuxu ca kaw xanaa seen yàlla dafa tukki wala dafay nelaw noonu yeneen ti baal yi jël seeni paaka di dagg seen bopp loolu seen aada woon waaye taxul safara wàcc iliyaas moom jël fukki xeer ak ñaar ñuy misaal fukki xeeti israel yi ak ñaar defar ci ab saraxukaay mu gas pax mu wër saraxukaay bi mu rey yëkk wi dogat ko teg ko ci matt mi mu daldi jël fukki njaqi ndox ak ñaar sotti ko ci kaw yëkk wi Ilias ñaan yàlla ne ko wuyuma yàlla ndax nit ñi xam ne yow yaay borom bi yàlla noonu borom bi wàccee safara ci kaw asamaan lakk sarax bi matt mi ba lakkaale suuf si nit ñi daanu ci suuf te naan yow rek yaay yàlla nit ñi jàpp yonent baal yi rey noonu Ilias ñaan yàlla mu taw mu daldi taw ñu teg ci ab diir yàlla wax Ilias ne ko mu diw Aliyasa ngir mu wuutu ko ëllëg Ilias laaj Aliyasa loo bëgg ma ñaanal la ko balaa may génn àddina Aliyasa tontu ko ñaanal ma ma am kàttan gu mat sa gos ñaari yoon Ilias ne ko soo ma gisee fi ma yàlla di jëlee àddina sa nangu na ca saasa ab saretu safara bu ay fasu safara di dawal ne jamet ne cas Ilias yéga ko asamaan sa gis loolu batax tax ñaanam nangu kàttanam matoon na kàttanu Ilias ñaar fii la bi yem am na ay laaj benn lu tax yàlla tànn ay nit ngir ñu doon ay yonentam yàlla bëgg na nit ñëpp bëgg na nit ñi xam liy dëgg bëgg na nit ñi mucc seytaane bàkkaar ak dee ñaar lu tax buur akab mere woon yonent yàlla Ilias ndaxte Ilias waxoon na ne taw du am ay at buur akab mere woon na ko ndax xiif ba amoon foogoon na ne Ilias la xamul woon mbiri yàlla la woon ñett ban diir la Ilias làqu akab ñetti at ñeent naka la yàlla wattoo Ilias ba muy làqu buur Akab yàlla sant na ay picc ñu indil ko lekk bés bu nekk gannaaw gi yàlla yebel ko cib dëkk foofu jenn jigéen ju jëkkëram dee faj ko juróom lu xew bi Ilias dellusee ngir wax akab ne dina taw akab dafa meloon mu jiñ Ilias ne moo indi xiif mi juróom benn lu tax yàlla téye woon taw bi ci dëgg-dëgg nit ñi dañu dégg di woon tey màggal baal ab yàllay xërëm juróom-ñaar ndax yonent baal yi mënoon nañu wàccee safara mbaa taw déedéet juróom-ñett lu xew ba Ilias ñaanee yàlla ngir mu wàccee safara yàlla dégg na ñaanu Ilias te wàccee na safara su saraxu Ilias ngir won nit ñi kan mooy yàlla dëgg gi juróom-ñeent ndax nit ñi nangu woon nañu ne yàlla mooy yàlla aji dëgg gi waaw wax nañu yow rek yaay yàlla noonu ñu rey yonent baal yi fukk kan mooy aliyaasa mooy yonent yàlla bi wutu Iliyas yàlla mayoon na ko ñaari yoon doole gi Iliyas amoon fuk ak benn ndax gëm ngeen ne yenn ci sunuy jafe-jafe ci sunu dund déggadil yàlla moo koy indi waaw fukk ak ñaar naka lañuy saafara jafe-jafe yooyu war nañu xool sunu dund te xam fan lañu deful li yàlla santaane noonu war nañu tuub te bàyyi lu bon fukk ak ñett bu yàlla àndeek nun ndax war nañu ragal dara wala kenn déedéet Ilias dëkku na ñépp ci ndimbalu yàlla yàlla boroom doole la yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla kenn la amul moroom amul kenn ci yonent baal yi ku mënoon a wàccee taw mbaa safara yàlla bëggul bàkkaar yàlla téye na taw bi ñetti at ndax bàkkaari nit ñi yàlla daan na yonenti xërëm yi doon jaamu baal yàlla mooy boroom doole yàlla wàccee na safara mu lakk saraxu Ilias boole ca saraxukaay ba yàlla téye na taw bi ñetti at waaye bi Ilias ñaanee taw na gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla aar na Ilias te dundal na ko bi muy làqu akab yàlla def na kéemaan ngir muri bëti nit ñi ndax ñu gëm ko beneen yoon dinañu waxtaan ci bi yàlla yónnee yonent yàlla yunus ci niniw